loolu kañ moom di ko di ko métti lu ah c'est très difficile euh, yàlla nag moom ay ay mbiram des fois mu ñëw dal dal boo xam ne euh, indi indi ay ay jafe-jafe jafe yu metti maintenant boo génnee boo génnee aspect Touba bi pour man euh, dafa am loo xam ne buñ ko teelul def hmm. ah, da ngay assainissement parce que euh, ak lu mu mënti nekk bu ay nit yu bëri comme li Badara wax ay nit yu bëri ñëwee sanc fenn mais bi ñu koy sant prévoir ñu assainissement xamuñu fi ndox mi lu jóge dëkk bu mu mënti nekk mu inondé te am na fu muy toll dabe rek ngay mën a def mais pour régler le problème définitivement budget Sénégal sax mënu ko parce que il faut quand même qu'on qu'on vraiment preuve de de réalisme un peu sur comment gérer ce problème là ñaata parce que bu problème amee da naan lan lañu ñu mën a def ba li dootul amati que bu tawatee Touba du am lii ñaata xaalis la laaj lu dëgg ban plan lañ koy def parce que sëñ Mountakha bés bu ne dafay defar euh, université dañu naan université bi tant de budget la tant de temps la dafay pare ñu def ko mu pare mbirum assainissement dañ koy suul waaye li mu laaj dafa bëri parce que ñun ñii ñëpp ku ci dem Touba nga dugg ci quartier yi nga xool nga xam ni c'est un c'est un travail colossal qui va li muy nécessité ay ay atti atti at de de de liggéey la non seulement loolu ba pare man lu ma mën a comprendre mooy que bu bu problème amee ñeneen ñii ñëw di sanc ah bu ñu yokk ci problème bi Mm. donc il faut ñu un xool un comment les gens s'installent nan la ñuy tabax seen tabaxee seen kër yi naka fan la ñuy dem ba nga xam ne problème boobu dafa am géej amu fa fu fu fu ndox jaar sax pour nga évacuer ko des fois c'est des c'est des problèmes donc pour man en dehors de aspect religieux bi parce que Touba dafa nekk benn dëkk bu spécifique il faut que ñu qu'on soit ñu teg ko ci kaw table ñu ne lan la ñu mën a def ba définitivement bu tawee ah ñu bañ a am catastrophe yu mel nii te loolu alal ju bëri ñook moo koy def état luy responsabilité moom mooy mu wax dëgg nit ñi leneen lii mën naa ci améliorer mais munuma ko régler nii est-ce que président bi ñu fal fii ak juróomi at yi mën na taxaw ne waa Touba fii ak juróomi at bu tawatee inondation du fa parce que loolu boo ko waxee les experts yu njëkk a wax mooy ñaata lay coûter qu'est-ce qu'il faut faire il faut proposer un plan ah yéen ñi nga xam ne yéen yore budget bi nag ngeen koy kii loolu la parce que c'est un problème de sous et de gros sous donc aussi il faut pas ñuy ñuy euh, ñuy améliorer situation bi rek dem def ñaari pompe xëcc pompe bi def ni ëpp suba rebolote loolu rek moo fi am mais solution définitive moom amagu fi parce que solution définitive bi sa demande de bokk beaucoup d'argent te loolu pour man il faut ñu toog ñu wax taalibe yi dëgg sénégalais yi dëgg lii mën nañ ko lii mënuñu ko léegi bu fekkee ni ñoom mënuñu ko comme dëkk boo xam ne la ah lépp lu ñu yootu yàlla mën na leen si dimbali ñu seet yeneen alternative pour je sais que ay Touba ci kanam et tout sax ñoom ñi ngi def ay efforts yu extraordinaire di di defar ay mais li mu laaj wax fa dëgg yàlla boo fa demee ba gis nga xam ne li mu laaj ci budget pour def ko du caaxaan c'est des c'est des moo gën a cher bi pour mu pour ndox bu ñëwee dem wax fa dëgg yàlla donc comment on fait pour régler sa problème sinon chaque année dañuy ñëw ñun ñu def émission ne woy dugg na fii ministre bi wax na lii effectivement mais pour man euh, phrase du ministre bi c'est trop petit sax par rapport au problème comme daal la mu ko le problème il est il est énorme te problème bu amee nag da nga koy teg ci kaw table bi nga transparent wax li mën a nekk ak li mënul nekk bañ fi diggee mbir yoo xam ne mm. yow doo ko mën a assurer loolu moo parce que suñu politiciens yi dañu mën dañu mën dige dañu ñëw ne damay def lii soo ma falee lii ak lii nga ñëw ba fal ko cinq ans après tu te rends compte que c'est le même problème wala dafa dafa empiré wu donc je pense que il faut que ñu waxante dëgg seet lan moo mën a régler problème boobu bu fekkee mënuñu ko régler lan moo ko mën a améliorer wala lan moo ko mën a atténuer je pense que il faut qu'on fasse la différence entre ces choses là. mais mais mais Bouba hmm. dama laal lu am solo. Hmm. Touba ci kanam. Hmm. mu leen fàtte woon mais c'est des gens